convocation pour l'école ñu ngi ci pour

professeur Massamba Gueye sànq mu ngi waxtaan si éducation aux valeurs di wax ni ñun suñu éducation dañ ci war a delloowaat réew mi dañ ko war a delloowaat suñu cosaan dañ ko war a delloowaat li nga xamante ne moom moo cosaanoo si suñu réew jële fa ay sources plutôt que tey euh, ñu dem di jëli li nga xamante ne nañ ko ci histoire beneen dëkk jëlee nañ ko Asie wala jëlee nañ ko Europe dañu war di concentrer suñu dëkk di fi tibbee gis nañ daal bu ñu ko defee dañu war a gën am yar te sax lolu dafa déglu lo xamni waxon waxoon nañ ko depuis assise yi nga xamni mom mo amone ci 2014 les assises de l' nationale donc dafa nek recommandation bo xamni mu ngi fi ci penc mi dañuy def rek COSYDEP dafa don créer wat dajé bi pour mën ko relancer pour ñu mëna démat demaat def ay jéego jëm ci lolu nee na nasaran xalé bi judd ba dem am 7 ans muy compter ben ñaar ñett ci olof mu xey duggu 6 sixième nga ne ko compter 1 2 3 c'est-à-dire des structures une conception ci nous avons des sur ci nous avons des structure mathématique la donc euh, ñun qu'on doit war des structures la te a la gis nañu ministère bi des am ci ay nous, def nous, parce que nous, classe xalé yi boo ci dajal lak ci olof lim lay limu comprendre pour mu expliquer ci olof mo gën yomb ci mom wax la ko ci français kon lolu luñu wara war ñu adapter donc adapter dafa bax nit ki boo jox dara da koy jox li nga xamantene mom la adapter wol mom la gën mëna consommer te bo bëggee def qualité dafa am ay tank yu bari yu taxaw dafa am qualité euh, enseignant day taxaw kan moy jàngale d'abord nang nga koy tëggee cadre bi day taxaw fa la xalé bi di est ce que yanu euh, nanguna dayo yi wara am am na fa waye tamit lak bi ñuy jàngee tamit day waral qualité parce que ki ki ki nga xamantene digënté xam-xam bi ngui koy jangal ak lak bi ngui koy lak lak bi day nek ci digënté xalé bi ak xam-xam bi boba da ngay indi ben difficulté de plus lool motax ñu né dañu wara a ñëpp wax nañ ko constat bi ñëpp d'accord nañ ci suñu langue yi ñuy jangé langue étrangère dafa am nek barrière digënté xalé bi ak xam-xam bi dégg nga buñ ko dindé ba nga xamné ne bi langue bam doon fowee bir kërëm mom la fekk tay ci école bi dina tax jot bi muy jot ci xam-xam bi gën a gaaw dina tax xam-xam bi gën ko jege moo tax recommandation forte lañ ci def pour aller vers ci benn enseignement boo xam dañ koy joxe ci sunu langue yi nga xam moo nekk ci réew mi. wax na ko nee na dafa gis ni tey éducation financement bi dafa nekk benn enjeu bu profond dafa nekk lu nga xamante ne tànk bu am solo bu ñu war a taxawal la parce que ku wax éducation foo wax accompagnement tey ñu ngi wax waxu problème mu abri provisoire ñu ngi wax problème mu manque d' enseignant ñu ngi wax problème mu école yi amul ndox amuñu toilette donc yooyu yëpp boo ko gisee financement day yor taxaw financement nak amna ci aduna bi mais fay am ay sensibilité yo xamni nit ñi dañuy yaakaar ni éducation nekul domaine bo xamni dafa rentable comme ni ñu koy waxee maanaam gis nañu domaine c'est pas immédiatement rentable mais dañuy gis ni lolu du vision bu sori comme vision bu sori di wax di raisonner en termes de génération 25 ans kon di nga jema tabax di nga jema a investir éducation kon dafa laaj parmi les investisseurs là ñuy am ñu nga xamantene dañuy am une forte sensibilité ñu yek une éducation qui a financer le domaine de l'éducation. Si ba tax 25 ans Sénégal est a am bon émergence bi ñuy wax ñu mën ci yegg loolu banque de l'éducation.